Cheikh Yérim foo mmh. mu arrêté foo arrêté parce que mmh. problème mœurs mmh. mais ñun ñun mœurs ak politique mais mais mais Ousmane Sonko est que boobu nit ñi xam nañ ko est-ce que il est reconnu mais mœurs gi muy wax sax man daal Cheikh Yérim daal man dama yaakaar ay rawaanam ak ay rabam ñoo bëgg affaire mœurs ndax yow yaa ngi attaqué ay nit ci wàllu mœurs ni ñoo ñu ngi contre ci yow affaire de mœurs te ah, yow mësu familial sax la lay attaqué eh, yamuñu si yow rek mais dañ ko ubbi hmm. yaatal ko wax sa mërs hmm. yow familial wax sa hmm. biir mërs personnel xam nga yooyu man daal je préféré bind livre booy bind livre da nga war a indi ay histoire répétitive yoo xam ni dafay amal avancement peuple bi